والصلاة والسلaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man walaa mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi di suivre chaîne bi di MMS TV nu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu boole ñu sàmm defal ñu tawfiq dellu si waat nañ ak yéen ci seen rubrique anti njabar bi ñuy amal àllarba di jot ci waxtu wi ngeen ci ànd ak seen mbokk oustaz Ibrahim Gueye euh, mbokk yi noo ngi sàkku ci yéen encore une fois dee leen abonné ci chaîne bi waaye it nag dee leen aimé li nga xam ne mooy vidéo yi loolu mooy tax affaire bi keneen di ko gis muy dem ci keneen di dem ci keneen su ko defee loolu nga mën a participer ci sensibilisation bi nga xam ne ñoo ngi nekk di ko di ko def waaye boo gisee ne aussi am na solo donc mën nga ko aussi partager loolu am na solo trop bon ginnaaw loolu su ngeen seetloo la fois passée ñoo ngi woon ak yéen ci xeetu doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñooy dimbalikoo njabarkat yi ñoom ñooy dem ci sëriñ si ci buxaaba yi ci maaman yi ñu waxoon ne ki ci jiitu xeetu doomu aadama ba ci jiitu mooy ku fay dem ngir mbirum muslaay ngir ki nga xam ne dafay dem ngir wuti ay ay muslaay kooku wax nañ ci ay mbiram ba développé lu baree bari ñu waxaat ne xeetu ñaareelu doomu aadama bi ci topp mooy ki fay dem ngir wuti ay ñaan jàpp ne daa am luy wut mu dëgër jafe ci moom mu jàpp ne bu demee ci maaman yi ak njabarkat yi mën nañ ko cee dimbali mu dem wuti ay ñaan keneen ki ci topp nga xam ne fa la ñu toll tey mooy ki nga xam ne saa yu solee dàllam dem seeti ab njabarkat day yàq yàq rek moo ko fa tax a jóg te waxoon nañ leen tamit ne njabarkat yi luy musle mbaa luy aare nekkul ci ñoom waxoon nañ leen tamit ne njabarkat yi lu la mën a amal njëriñ yow nekkul ci ñoom maanaam bul yaakaar ne mukk boo demee ci njabarkat mbaa nga woo ko déggante ak moom téléphone mbaa ab sëriñ mbaa ab boxaaba mbaa ab féticheur moo xam nu mu mën a tudde boppam moo xam da feebar jàpp ne da fay fajoo ji moo xam daa am looy wut jàpp ne boo demee ci moom mu yomb yooyee yëpp nekkul ci loxo njabarkat yi yàlla sunu boroom moo gën a mën a wax dëgg ñépp maanaam yàlla sunu boroom mooy ki gën a dëggu ci ñuy wax te moom yàlla subhanahu wa moo njabarkat njëriñ du mës bàyyeekoo ci moom léegi nag yow yaay wax dëgg wala yàlla subhanahu wa taala moo wax dëgg yow mi jàpp ne am na njëriñ bu nekk ci njabarkat yi ba tax nga fay dem ndax yow yaa nekk ci dëgg wala sama boroom yàlla mi ne njabarkat yi lor dong mooy bàyyikoo ci ñoom ndax yàlla moo wax dëgg wala yow jullit bu am xel day dëggal ne suñu borom tabaaraka wa taala mooy ki wax dëgg ana yàlla lu mu wax yàlla nee na njabarkat yi lor dong mooy bàyyikoo ci ñoom mbokk yi bu ñu développé tomb tay bi loolu dina leer ci yéen tey dañuy ñëw yéen ci xeeti doomi aadama yi nga xam ne saa bu ñu solee seen dàll dem ci njabarkat yàq leen tax a jóg loraate moo leen tax a jóg indi ay jafeñ-jafeñ ci doomi aadama ñoo leen tax a jóg te njabarkat yi lool dong la ñuy def njabar amul benn njëriñ ak côté boo ko mën a jaaree du lu am njariñ borom bi tabaaraka wa nee na wala yuflixu saaxiru xaytu ata loolu li muy tekki mooy njabar noo ko mënti jëfandikoo noo ko mën a jëfandikoowee sunu borom neena na mu mënu cee jóg wala yuflih njëriñ du ci jóge mukk ci aduna kon njabar yàq luy yàq dong nga ci am kat xam-xamam bi li bari bari yépp dong ci ne loolu kat du samay kat de waxoon naa leen ko yàlla moo ko wax ci alquran tey dama leen di jox ay misaal yu bare bare suñu ko waxtu yu mayee yu lay won ne njabarkat yi lu ñuy yàq rek la def yàq rek la def mbokk jullit ñi dama leen di nettalil ay nettali yoo xam ne man maa ko dund ak ñim dal ay nettali yoo xam ne du wut ne dama leen naan nee nañu ma ma ne leen wala dégg naa wala diw sàngam nee na déedéet li ma leen di nettali ay histoire yoo xam ne dama kaa dund ak ñamu dal bokkoon ci ñi nga xam ne dañ doon participer ngir jafan jafan yoyu dal di deñ bima ci ñëk netali pour wax leen ne njabarkat yi dañuy yaq rek waye lu ñëri lu baax du mësa ko ci ñu benn waye nga ni li tax ñi netali histoire nak moy nit ñi mëna xelu nit ñi mëna gindé ko ndax suñu borom mo wax ne faqsusil qasasa laallahum yalla subhanahu wa taala mo le netali nit ñi histoire ndax ñu mën a xalaat dégg nga nettali leen nettali yi ndax ñu mën xalaat kon damay nettali lu xew ma ma dund ko fekke ko xam ko ngir yow mi koy déglu nga mën ci jël ay leçon jël ay matukaay ngir na yit nag nettali yi di confirmer man li nga xam ne maa ngi koy wax te insha allah dinañ ko nettali ci anam boo xam ne kenn du xam ki ñuy waxal kan la kon mbokk yi histoire bi ma leen di njëkk a nettali benn waay la koo xam ne dafa nekkoon ca Amérique nekkoon fi jóge ab sénégalais la jóge ci réew mi bi mu nekkee xale dem réew réew tubaab ya fu ñuy wax Amérique di jàng ba fa nekkee di jàng ba yàlla sottal am njàngam mu nekk ab doctorat ci benn xam-xam ci xam-xam yi jàngkat yi di spécialisé wu ci université yi mu nekk fa ab doctorat man lool lam jàng formé wu ci def ci ay formation ba am ci ay lijaasa yu kawee kawe ba mu yàgg benn organisation bu mag ci àdduna bi daal di koy recruter lu ñu tuddee ONU daal di koy recruter muy liggéey fi gën a kawe ci organisation bu mu fay liggéey moom moo may nettali moo ma ko wax toog sama bureau nii ma koy consulter ñuy waxtaan mu ne ma sama salaire eggoon na ci quatre millions francs CFA mu ne salaire am eggoon na ci quatre million francs fa mu ne moom dem na ba njiitu réew mi sàkku ci moom mu dellusi ci réew mi ngir mu lëggéey ak moom mu dal di ne déedéet man bëgguma dugg ci mbirum politique te sax awma yéene dellu ci Sénégal ci situation yi ma nekk dégg nga alaa kulli xaal gàntal na daal ñëw dellu ci Sénégal mu toog fam toog di lëggéey doonoon koo xam ne fu mu bëggoon a dem ci àdduna bi dem dem na sax ay réew yu baree bare yoo xam ne firndeel na ma ko sama kanam fu bari ci àdduna bi dem na fa ndax liggéeyam dafay déplacé wu liggéey buy déplacé wu la famille bi mu bàyyi woon fii ci réew mi teg na leen ci ay situation yu baax tabaxal na leen ay dëkkuwaay dégg nga ñenn ñi ci nekkoon ay xale ay jeunes comme ñoom comme moom. lijjantil na leen ba kenn ku nekk am nga ci looy kurkur yi kenn ku nekk fekk na la sa métier jàppale la si ba nga am loo tedd yaa sa njaboot benn bés waaye juróom bu jigéen feebar sonn lool ci feebar bi ba nit ñi di naan dund ak dee biñ ko ko waxee mu daal di jël vol daal di ne xaaral ma profité ci situation bi seetuwaale sama yaay demaale Sénégal ci la jël vacance te bi muy jël vacance di ñëw dafa amoon beneen contrat bu mu waroon a signé ak waa Arabie Saoudite muy naar yi beneen contrat bu bees ci wàllum liggéeyam bu mu waroon a signé boo xam ne doon na ko jural dit alal ju bare bare bare bi muy ñëw bi mu ñëwee ba senegaal bi muy ñëw dafa jënd oto ca réewu tubaab ya jiital oto bi oto bi egsi moom mu ñëw jël oto boobu di ko dawal bi mu agsee mu nekk fi nekk ci wetu yaayam ñuy yéeg di wàcc ba di faj ba yàlla dogal yaayam ja daal di génn àdduna bi yaay ji génnee àdduna mu daldi toog dëj bi ba mu dëj ba jeex bi naa daal ci gàttal toog na ci réew mi luy tollook ñaari weer ndax ci conse la nekkoon ànd ak loolu yaayam génn àdduna waaye mbokk yi lan moo xew ci ñaari weer yooyu ndekete laa xawla wala quwwata illa billah am na njabar guñ ko def te njabar gi ñoo ngi ko def ci oto bi muy dawal bi maanaa feek mu ngi dawal oto boobee njabar gi day gën a jàpp ci moom parce que amul fenn fu ko nit mën a jaar jox ko lekk baa jox ko naan ba jox ko lum euh, diwoo dara waaye fan lañ ko jaar danoo dañ koo njabar te dinaa ñëw ci loolu mu gën a leere dañ koo njabar daal di jël njabar bi def ko ci ab oto bu muy dawal léegi lan moo xew nee na benn bés laay dawal sama oto tegu ci kaw péage bi jóge mbuur di ñëw ndakaaru nee na man damaa dem di dem maa ngi dawal de mais damaa dem ba yëg ne ma nekkatuma di contrôler direction oto bi nekkatuma di ko contrôler benn ñaaral moy auto bi limi daw ci vitesse ni xamna ni du man ndax bëgguma mu daw lol ci vitesse waye xamna ni du man makoy def neena ci la xamne nak amna lu xew amna lu nekk ak man neena yeguma sa bop yeguma yeguma yeguma ba auto bi door bopam ci territoire li nga xamne moy péage bi kérok yalla mu sowé ak auto bu baax waye naron mënoon na ci neena auto ba fofu la mom définitivement may dem di faju di faju di faju yagg fi ma yéegee ne man amna problème moy fi ma bëggee dem ba décider man dama wara ñibbi delu bi sama contrat jexé bi sama vacances jexé mo wara delu ndax li taxone mënul delu période bi défé choc moy dafa engagé won ab kërëm gu bees bo xamné kër gi déssul won dara carolé karole kese déssol mu commandé caro yi ci Chine caro yi di ñëw jaar ci bateau waye li gëna yéme moy même bimu nekké Amérique daana commandé ay karo waaye malheureusement karo yi mosuñoo agsi wala karo bu ci agsi du xam lan mooy toj karo yi waaye karo yi dañuy tojotoo ba jeex waaye mosu def ci biir kër ga loolu di wéy ba mu vacance jeex mu bëgg a ñibbi mu am yéene dellu bitim réew dellu Amérique gam nekkoon warul am benn problème waaye li mu njëkk a remarqué mooy saa yu demee ay aéroport saa yu demee ay rapport day am jafeñ-jafeñ ngir dellu saa yu demee ay aéroport day am jafagne ngir dugg ci vol bi dal di delu fi nga nous amerique Amérique faut faw am am imma am ci vol bi imma mu am papier bu mu imma mu tardé vol imma il faut am lu xew lolu annuler Il lolu di répété di répété di répété di répété wu si jëm bopam mu commencé perte envie Sénégal mu commencé bëgg di toog ci bu commencé am cofeelu toog Sénégal bañ a génnati naar yi di ko woo tubaab yi di ko woo fu nekk ci àdduna bi ñu koy woo loolu dema dema dem ba mu perte liggéeyam maanaam ñu daal di koy dàq fa mu doon liggéeyee contrat ba mu bëggoon a doon signé ak naare loolu daal di annulé wu léegi nag amatul fenn fu mu liggéey te mu ngi toog ci réew mi nee na ma moom nee na ma dellu naa ci njiitu réew mi jël moom audience waxtaan ak moom ba ñu signé ay accord bamu warma defal contrat wala signature nangam mais en chaque instant mom si dem bopam suma joge ci mom manam buñ toge ba waxtan day joge manam ci lay faté samay mbir ci lay faté sen bu nek ci lenen suma ko woy duma ko jot suma ma bëgg am audience day met ci man ci ko xamanteni ni moma daan wo di ma top ngir ñu liggé man ak mom mbokk julit ñi ay situation commencé ko commencé changer wane ginnaw wallahi affaire yi dem ci moom dema dema dem ba amatul lu mu fay location ci kër gi mu dëkk ab goroom moo ko àll këram mu dëkk ci ak soxnaam mbir yi di dem di dem di gën a jafe ci moom di gën a jafe ci moom ba dépense bu muy def ci biir këram day jafe mbokk yi bi ma li ma gën a yéem ci mbir mi ak preuve yi ma jox yépp biñ toogee di waxtaan toog nañ di waxtaan maak moom bi ma jullee tàkkusaan lañ toog di waxtaan ba dix-huit heures dix-neuf heures mooy mu may nettali dama war ay preuve nag dama war ay photo demoon ay papier may comprendre kii li muy wax ko nekk man bi muy tàmbalee moo yaakaaroon ne kii moom may dem mais bi ma wanee ay preuve ci laa xam ne kii li muy wax dëgg la ba biñ demee ba jeexal ma ne ko pour ma defal la traitement faw nga am lii am lii am lii am am motul quinze mil, motul vingt mil, waaye munu ko woon jëndal boppam am na ci loo ne man maa ko mujjee lijjantil jox ko am andolon xam ne ki mu fay ci ay traitement

yu ñu permettre ñu xam ni ci ay mbokki boppam ñoo ko laal ay mbokki boppam ñoo ko laal te mbokk jullit ci sama expérience ci ma expérience ci wàllum faj façon njabar yi gën a garaaw yi dal doomi aadama seeni mbokki bopp ñoo leen ko teg maanaam ku la xamut di la seen nii ci àll bi ngay dem bariwul lum lay njabar mu jàpp bariwul def naa dix-neuf ans dix-huit ans d'expérience waaye bariwul koo xam ne ana yow ana man mu lay njabar mu lay lëggay muy jàpp bariwul dinay am nag mais bariwul waaye façon njabar yi gën a mën a jàpp te bu jàppee di def musiba te bu jàppee di yàq mooy njabar yi nga xam ne say mbokki bopp ñoo la koy def parce que ñoom dañ lay xam ci la ñu dem ba yëg ne ndekete ay mbokki boppam ñoo ko laal te wallahi man seede naa leen lu leen defalul amul defal na leen lu nekk bokku julit ni lolu moy réalité Afrique lolu moy réalité Sénégal malheureusement té lu waral waral njabar kat yi ne ci réew mi kat yi ne ci réew di fat nit ñi di sonal nit ñi té amul nit ñi benn njariñ njabar taxul am réew développé njabar day dello ginnaw réew njabar day dello ginnaw économie way si bi may netal histoire bi sama rombañ yi da doon xawa tok lu waral lolu moy man gisiwuma sax ne alalam yàqu na gisuma ne sax liggéeyam yàqu na gisuma ne dàq nañ ko xooluma ci oppor opportunité bi mu amoon en tant que jeune parce que quarante ans motul ay trente cinq ans jàpp trente huit ans lay war a am ci ay at dama fàtte at yi exactement waaye côté bi ma doon xoolee ba mbir yi xaw a tuuti sama xol mooy potentialité mooy capacité mooy xam-xam bi yàlla def ci moom te mu nekk xale nekk ndaw ak gis bi may gis ne kii mënoon naa jëriñ lu bari biir réew mi mënoon naa jëriñ lu bari Sénégal mbokk jullit ñi ñu dóor ko njabar mystique ko attaqué ko mystiquement yàqal ko addunaam yàqal ko alaxiraam waaye it nag yàqal réew mi xale bu toll noonu jeune bu toll noonu boo xam ne mënoon naa jëriñ réew mi lu baree bari ko amoon avenir laa ilaha illa mbokk yi njabar yàq rek lay def moo tax sama borom yàlla wax na ko de yàlla nee na njabarkat yi yàq dong la ñuy def luy loraate dong moo nekk si ñoom loolu benn nettali la ci ay nettali yu bare bare bare bare beneen nettali bi nga xamante ne nii boobu tamit dégg nga la xewe woon encore une fois Amérique la xewe mais bii ñaari way dencante la woon waaye ñoom duñ ay sénégalais ay gambien lañ ñaari way ab couple gambien la buy dund ca Amérique couple boobee xam naa leen bu baax xam naa leen bu baax seq naag ñoom ay teraanga ak ay mbir ay yëf-yëfaan balaa problème bi di am ku góor ki xam naa ko ku jigéen ki xam naa ko ñoom xamante nañ bu baax yàlla dogal ñoom ñaar seen jàmmoo ji nekkoon ak nin daan dunde nin daan kafe bokkoon ay mbir yu baree baree bari fële ca Amérique seqoon mbir yu baree baree bari bari ba léeg-léeg sax maanaam doo leen xaw a ràññetle ngir nekk gi nekkoon benn ak déggoo gi déggoo woon te jëkkër ak jabar seeni alal seen liggéey seen lépp ñoo ko bokkule woon ñëpp kontaan ci liñ doon dunde danoo jékki-jékki rek mel ni ay xaj ak ci lu kenn xamul lu ko waral jabar ji mënatul a gis jëkkër ji lu dul ay saaga ndey ak ay mbëkk ak ay poñe la koy def jëkkër ji mënatul a gis jabar ji ludul ay ciépatu la koy def ak ay yu kenn xamul manam kenn ku nek ci ñom ñaar portetul moromam ci lo xamne ko ci jakar lol nek lu xew bu la ne li mo xew ko ci lol nek lu xew bu la ne li mo xew ci la ma magu ndaw si magam bu mbokal nday ak bay woma ma wax ma situation bi ni mu demé ci la jël sama téléphone wo ndaw sa ci am problème ak jëkkëram di naxtaan ak moom ba mu jógee Amérique ñëw Sénégal fekk ci ma ma toog ak moom di waxtaan def nañ deux jours ma ak moom mu nekk ci man ñu toog di waxtaan ma koy laaj di ko ma di ko consulter di ko laaj looy gént ak sa gént yi nu muy demee affaire yi nu mu commencé problème bi ak si jëkkër ak yu ni mel ba am ay information yu bare baree bare bare yoo xam ne xam naa ne lii nekk lu naturel ci laa woo jëkkër ji téléphone ñu waxtaan échanger man ak moom ci ay vocal ay appel yooyu yëpp ñu échanger ma dem ba xam ne ah, ah, am na lu ci mbir yi nag ci laa leen proposé benn traitement ku góor ki moom sax moom jotuma ko proposé ku jigéen ki laa proposé ay traitement ku jigéen ki nangoo toog ci réew mi luy tolloo ko weer wut fu mu ma koy suivre muy dem di ñëw ñuy di def traitement yi ci biir traitement yi yàlla miy dimbale daal di ñuy dimbali ma dem ba comprendre ndekete ndaw sii problème yim am digënté mom ak jëkkëram mo ngi tàmbali ci mom ndaw si bimu tabaxé tabaxee këru boppam parce que ndaw ci yalla da ko dimbali muy jigéen di am jom nekkul Amérique di teund di nelaw nekkul Amérique bu ñëwé Afrique di puukare woo ko solo ko simbi waye dafa nekkon di daan doole su borom dimbali ko mu am lu tabaxé kër ci la dellu Gàmbi jënd téré tabax fa kër go xamné ne R plus 3 xaw R plus 2 kër bu rafet parkal man mi dem na ba ca kër ga dem na ba fofu alhamdullilah kër gu rafet la nekete mbokki jëkkër ji fiir nañu fiir nañu ci ndaw si yaakaar nañ ne ndaw si alalu jëkkëram ji la dajale tabaxee ko kër gi ci lañu taxaw maanaam benn frère benn frère ci jëkk frère jëkkër ji ak dégg nga ak euh, yenn njëkk yi dégg nga boole yaayu waay si ci lañu booloo def seeni mbir yéeg ak wàcc dégg nga ba jafeñ-jafeñ yi nga xam ne am na seen diggante ñoom ñaar lolo ko sabo te loolee manam ñi ma tudd ni kenn ki seen biir momako netali kenn ki ñom seen biir la fexé fexé fexé ba deggënd ci ak mom def ci yama ci wara def wax ci yama ci wara wax mu daldi di avouer wax ma ni mu ak liñ def ak yépp amna ci lo xamné sax ci kër ndaw ci lañ ko def amna ci lo xamné ci kër ndaw ci kër gi mu tabax yes ci biir kër ga lañ ko def bo duggé ci côté ba lolu motax manela njabar yi la gën a mën a attaque yi la gën a mën a sonal mystique attaque mystique yi la gën a mën a perturbé ñi la gën a xam gën laa jege ñoo la koy def mbokk jullit yi diggante boobu lu ne laa ci jéem ngir bañ a tas waaye malheureusement ñoom ñaar mënatuñoo supporter man mënatuñoo supportante seenu diggante noonu la tase te njabarkat yi li ñu gën a aay mooy tas diggante lu ñu gën a aay mooy tas diggante jëkkër ak jabar bu nekkoon ci jàmm seen lépp di dox ñu juboo seeni xol di neex ñu kontaan jabar ñëw tas ko loolu mooy li njabarkat yi di ëpp lu ñuy def ci réew mi ak bitim néew mooy tas ay diggante fi may mujjee ci histoire yi boobu benn histoire la boo xam ne pour wax la ne njabar léeg-léeg nga yaakaar ne da lay njëriñ mu lor la benn xale bu jigéen a ngi nii boo xam ne ñaareel la woon ci benn waay waaye si da koo takk ñaareel moom xale bu jigéen ba mu sëy si nekk ak waa ji waa ji utal ko appartement ñu dëkk ci appartement bi xale bu góor bi di ko defal lu ne en tant que jabaram mu nekk ci jàmm waaye dem na ba xeeb cofeel bi nga xam ne moom la ko jëkkëram won ay xariti boppam daal di koy jay ba daal di koy gëmal ne na dem ci ab maaman mu daal di koy wutal loo xam ne su ko joxee jëkkëram mu lekk ko jëkkër ji di koy gën a nab xoolal mom neena na yaay lu koy jëriñ lay wuti ci kat ya lan mo xew dem na wut yobbu nañ ko ci maaman maaman daje ben jabar kat bu mën fenn mën katch lol lool mu daal di jox dara am lu mu ko jox ni ko lii koy def ci lu muy lek nga def bu ko lekke dana la bëgg dana la bëgg dootul mana fana cip ci néeg wala tëdd ci lal te gisante wala ak yow manam dana dof ci yow ñaaral ba jël loolu def ko ci lekk jëkkër ji jëkkër ji lekk ko biir buy metti ci la ko attaqué ba tey mu ngi faju biir bu metti biir buy metti ànd ak wàccu ak gonfale biir bi day ëfu lëggéeyam arrêté na mënatula lëggéey mënatula dem fenn mënatula génn aawo bi moo ci nekk ak doomi aawo bi di yëkkatee ka tëral a karkari bés biñ koy indi ci man fii dañ koo jàppoo indi ko dañ koo jàppoo indi ko ana ñaareel ba bi feebar bi attaqué biiru waay si biir bi gonfale mu ragal ndax xam na ne moo ko def ca la daw ñibbi kër baayam ba fi may wax ak yéen naareel ba mu nga kër baayam loolu nag tekkiwul na ñaareel danoo bon ñaareel ba mu nga kër mu kër baayam léegi coono bi yëpp këpp waat na ci kaw aawa ba ak ki nga xam ne mooy ay doomam fi mu ne ñoom ñooy jël di faji di yëkkatee ko tëral sëñ bi moom talul dara mu ngi sonn bay bëgg a dee te loolu lu ko waral mooy nee na yoo nee na yoo yaay da doon dem wuti lo xamantene ni day tax ñu gëna bëgg mana gën loh bëgg manam no loolu day firndeel rek ne njabarkat yi lu la amal njëriñ du mas a bàyyi koo ci ñoom waaye lu lay lor dong nga fay jëri kon yow mi sama yaay yow sama mam, yow sama xarit yow sama rak yow sama mag yow sama jigéen yow sama frère yow góor gi yow ku góor kii yow ku jigéen kii. gàllawaay bul mës a sukk ci kanamu njabarkat. di ko dimbali ko mbaa nga koy demander de service cabarkat yi amuñu lenn luñ la mën a jëriñ yàlla nanu yàlla musal ci ñoom yàlla nanu yàlla musal ci ñoom te musal si mbooleem julit ñi gën a bon ci réew mi mooy njabarkat yi góor jigéen ñi sax a leen tane ñi gën a bon ci réew mi mooy njabarkat yi yàlla nu yàlla musal ci ñoom àdduna ak alaaxira kon mbokk jullit ñi loolu mooy li ñu bëggoon a partage ak yéen waxtaan bi jeexagul waaye dañ koy dagg foofu ba amaal beneen occasion ñu daal di continuer kon ñu ngi leen di soññ ngeen abonné ci chaîne bi dina gën a leer ci kanam bu soobee suñu borom tabaraka wa taala wa axiru daawaana an alhamdulillah assalaamu aleykum